par force. day dem xam nga gat ñiy dem di gagné dañu leen di woyal naan day dem day dem kenn du ko téye mais kii moom day dem day dem nit mënul ko fi téye mais kayit moo ñu boole Maïmouna ak moom c'était un rendez-vous d'un citoyen avec son peuple. kayit bi di ndey loi yi constitution bi bind ne lii ak lii en son article 27 nul ne peut exercer de deux mandats consécutifs Macky Sall wax ko waxaat ko wax ko waxaat ko man sax loolu dama ne woon du ma ci débat xam la moo tax gis nga. affaire mm. troisième mandat mm. joxe na tontu li keroog ci dialogue bi. lu mu wax bi mu waxee na ngeen ñaan ma ko ci njëkk jala ja pare. ku na ma guerre ku na ma guerre. attention de. waaye man yi déglu ma. diggante semaine dernière ak tey lu bari changé na fi de. lu fi changé. attention de. lu fi changé. attention de. li fi changé ñoo ko fi indi. politique dafa tëradi. non non may mun a politique lu mu tëradi tëradi da nga gars yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy àndee bu ëllëgee ku ne woon diw ak diw dina ànd ku ne woon diw ak diw dina ànd ñu ne waaw mais ku def say mandat mu jeex amoo dara loo ñu wax lu dul ngeen ñaan ma ko ci njekk dégg naa sax temps yi ñu naan ma pousse à deux ans looy pousse Macky dafa tàmm aj de. mais kan mais mais loolu rumeur buy daw la nii rek. Macky dafa tàmm aj. non loolu rumeur buy daw la ñaari yoon. non loolu rumeur buy daw loolu rumeur buy daw la. ban rumeur buy daw. alors Macky Sall nee na. waaw dialogue bi dina jeex le 25 bu dialogue bi jeexee il va s'adresser à la nation on présume que dina doon déclaration bu déterminante. Mhm. dans la suite. des événements nañu xaar loolu soreetul waaye cette histoire de report moom l ne tient à rien c' est une rumeur bu nekk bu gars yi nekk di di dawal et peut être même que ballon de sonde la aussi mën na nekk ballon de sonde aussi xool ndax bu ñu waxee report ndax gars yi dinañ ci d' accord gën a mën a préparer parce que gars yi ma gis nii pareeguñu de may les candidats déclarés hmm. nañ génn ci dëkk bi dem doxi comme ni Ousmane doon def. mais xamaguñu le sort de Khalifa Sall. déglu ma rek xam nga Moussa Tine dañu toog conférence des leaders mu wax fa benn affaire mu wax fa benn affaire. lu mu wax. njàngat boo xam ne may dafa ne parce que man la Cheikh Tidiane Dièye njëkk a wax ñu baal ma ne ma luy sa position ma ne ko dew ma dialogue ba te ku ma àndal boo demee dialogue ba dew ma Moussa mu ne. ñetti kaa moo am yeewi ñetti cas te cas yooyu dañ leen war a topp. cest ñu ne ko c'est lesquels mu ne dafa am koo xam ne dañ ko tër ñàdd ko jël paaka dóor ci boli gi deret gi ni cas bi waa ji yëkkatee pour wàcceewaat am ñu téye mu ngi caddi caddi nag. kooku kan la déglu ma rek bu ma paree di nga xam ñan la. mu ngi caddi caddi mais ku ne ko taf yóbbu ko hôpital dinañ ko sauver du dee de ba fii may wax yow nii kooku mënagul dee te du dee dinañ ko sauver Moussa Tine mu ne kooku mën na dem mën nañ ko sauver beneen kaa bi nag mooy koo xam ne ñàdd nañ ko ba pare ba yor paaka waaye rendee guñ moom moom paaka bi wàccagul ci bëli bi mooy deuxième cas. Hmm. troisième cas wu mooy ñoo xam ne nag in ne sont pas inquiétés ñaat duñ leen. rendi wuñ leen digguñ leen rey dara ñu ngi taxaw fële di ndaataata lax diggu ndaataata ko noos waaye léegi ñooñu dañoo war a ñëw sauver kii ñu war a yóbbu hôpital ak kii ñu ñàdd waa wala déet mu ne laaj waa ngi that is the question waa léegi ki ñu ñàdd ki ñu ñàdd xam nga ko eh, rendeeguñu ko kan la <laughs> xam nga ko ak ki ñu rendi ba deret bi ne tasar kan la dañu war ko rawale te ñu war koo rawale. kat léegi nag yeneen waa yeewi. waaw mais teg ci ay tur non non non dañoo war a wax ne ñii nañ dee suñu yoon nekku ci. ñaar a fi mën a ne ñaar ñu daw ca docteur wa ñu rayande. donc ki ñu rendi Khalifa Sall. non da dama ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu ñàkk Ousmane Sonko la dama ne ñaari combat moo fi am. Mhm. gàddu leen ñu daw ci kaw docteur ñu xool seen opération yooyu nan lay demee mooy waxtaan wa ñu xeex ba sauver leen. waaw te Macky nag malheureusement moom xeex la xam moom xamul waxtaan. ngeen xe yéen leen waaye déglu ma rek. mais lu ma rek ku sëñ Sidi Maxtaar rajo laa talaanu ak Al Amin rajo laa talaanu ñaan ci njëkk gii muy wax nii ne ñaan leen ma ko buñ ko ko ñaanee itam bu doon ñaan gi sax bu doon constitution bi may na ko ko ñu war ko ko ñaan boo ko ñaanee du la ko may du ci njëkk du ci teraanga kan moo gën a foor ñooñu doomu sëñ Touba doomu El Hadj Malick ñaan la ne la Karim Wade ak Khalifa Sall nangam Macky agenda am la yor dem Touba ak dikk ak soppiwul dara ci moom lu leer laa lay expliquer nii leen na fi sës mooy xeex comment loolooy laajee.